mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci tontu bi nga xamante ni waa Touba tontu nañ ko professeur Mary Teuw Niane di PCA Petroting Holding moom mi nga xamante ni démb moom lañ invité woon fa fecc grand jury bu RFM te doon sàkk ci ñu daal di annuler li nga xamante ni moo di tu ba ak gam gàmmu Tiwaawan ngir xeex jàngoro gi nga xamante ni moo di coronavirus bi ci biir réewum Sénégal la ay waxtu rek ginnaaw bi nga xamante ni ki na kaddu yi moom professeur Mary Teuw Niane ci la communication te ki nga xamante ni moo ko jiite di Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma bu ñu sukkandikoo ci chargé de communication bu Grand Magal de Touba Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ki di professeur Mary Teuw Niane du moom mooy jox ay ordre Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nee na xalif général des Mourides Serigne Mountakha amut ay ndigal yoo xamante ni dina ko jot ci kenn moom kilifa gi responsable la te njit gu mat sëkk la décision bi nga xamante moo gën leneen loo xamante ni chargé de communication bu màggalu Tuuba bi di Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma soulevé na ko fan la nit ñi nekkoon ku ci mel ni Mary Teuw ñan jamono ji nga xamante ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati na de cent millions de francs CFA jox ko état bu Sénégal ngir dimbale ko état bu Sénégal ci xeex bi nga xamante ni sumbon nañ ko ngir xeex li nga xamante ni moo di jàngoro ji di coronavirus beneen laaj boo xamante ni ba léegi chargé de communication bu màggalu Tuuba gi samp na ñeneen ñi nekkoon bi nga xamante ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jiitu na ci dal di wane geste barrière yi ngir moytu jàngoro coronavirus gi ci geneen wàll ga nag yeneen internet di ñoom li ñuy sàkku ci professeur Mary Teuw di mu dal di leeral deewu ñaari étudiant yi nga xamante ni moo di Fallou Sène ak Bassirou Faye ñi nga xamante ni faatu nañ ci jamono ji nga xamante ni moom Mary Teuw Niane moo nekkoon ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation nañ ko ci tudd ci jamono jo nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall doon na ñëw foofee ca université Cheikh ante Diop yi leen laaj la internet di sàkku ci Mary Teuw Niane mu leereel ko laata rek muy dal di wax waxu annulation màggali Touba ak gàmmu Tiwaawan jërë ngeen jëf fii la ñuy yam ak